asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen baaxoo di ñu topp ci seen chaîne bii di info 15 point com ñu ngi am mbégte ak kontaante comme ni nga xamante ni rek noonu lañ koy defee semaine bu jot bu nekk ñu daal di leen indil seen émission jàngat. comme ni ñu leen koy waxee rek chaque semaine jàngat benn émission la rek boo xamante ni chaque semaine dinañu jël benn thème daal di koy teg ci taabal bi daal di koy càmbar. su ko defee kenn ku nekk ci ñun rek mën a am lum mu ci jariñoo pour loolu mën a am nag euh, tijjil nañ leen page commentaire yi kenn ku nekk ci ñun rek daal di joxe li nga xamante ni mooy xalaatam ku gis ni itam am na thème boo xamante ni bëgg nga ñu waxtaanee ko nga daal di koy noté ci commentaire yi nga daal di ko fay wax bàyyi ko fa su ko defee dinañ ko jël defi ji ci ay recherche ñëw teg ko ci taabal ji jéem ci def li nga xamante ni mooy benn jàngat. tey nag ñu fës a ñëw ci li nga xamante ni jamono jii mën nañu ni Euh, ñëpp ci lañuy wax wala bëri na lu luñ koy gis muy dellu ci li nga xamante ni mooy wàllu mbëkk mi. guddi yi ñu toll nii ndaw ñi daal di jëlaat li nga xamante ni mooy géej gi c'est rare nga toog bés te doo dégg ñu ni la gaal sàngam jàpp nañ ko wala jàpp nañu nangam ci ay nit. amoon na ay jamono ñi demoon sax ba mbir mi xaw a wàññeeku waaye jamono ji ñu gis mu yokkaat lool lool lool lool lool te li ci yéeme ba doy waar mooy que ni jamono ji nga xamante ni fa la yokkee mu ngi yemook jamono joo xamante ni nit ñi ñu ngi nekk ci crise ndax li nga xamante ni mooy mbas mi jamono jooju lañ ko gis mu daal di gën a yokkaat encore loolu nag lan lay signifier li muy signifier mooy que ni euh, li nga xamante ni mooy pandémie bi ginnaaw bi mu dugg see am na ay loraange yu bëree bëree bëri yoo xamante ni indi na ko financièrement maanaam ci wàllu économie lu ci bëree bëree bëri dafa mujj daal di tagg téeméer domil demul dikkul maanaam Covid bi laa mu doon ñëw sax fekkoon na ñu bëri ci ndaw ñi wala bokk ñu ëpp ci ndaw ñi ñi ngi amoon li nga xamante ni mooy jafe-jafe ngir wàllum xëy mbas mi ñëw dolli ko mbir ya gën a dëgër. loolu nag waral na ñu bari ci ndaw ñi ñu bëgg daal di sóobu jël li nga xamante ni mooy mbëkk mi li nga xamante ni nag tey moom lañ ci bëgg a wax mooy dina jaadu ñu daal di taxaw def benn taxaw seetlu yéen ñi nga xamante ni dangeen di faral di suivre lu bëree bari ci internet bi bés bu yàlla sàkk bu ngeen duggee ci internet bi di ngeen gis ay vidéo gis ay ndaw ñoo xamante ni dañ lay wax ni doon nañu jéem a dem waaye nag am na ñoo xamante ni ku leen déglu di nga leen dégg ñu wax ni malgré jafe-jafe yi ñu taseel ci yoon bi yépp su dem mu doon tey dinañu demaat wala bu ñu gisaatee bunt daañu dellu bëri na lu ngeen koy gis ci internet bi euh, bu yàggul dara rek maa ngi seetaan benn vidéo ci internet bi dégg naa ci ñaar ñoo xamante ni ñëpp wax nañ lu ni mel mooy que ni tey nettali nañu coono yi nga xamante ni daj nañ ko yépp waaye nag ñu wax ni ñoom suñu gisaatee bunt danañu tànte pour dem loolu lañ lay signifier mooy que nii daal ñi nga xamante ni ñoo ñu jiitee mooy suñu njiit yi lii nii kat ñoom dañ ciy am part de responsabilité dañ ciy am part responsabilité bu baax a baax a baax a baax ndax lan ndax ki nga xamante ni moom lañ dénk wàllu xëyu ndaw ñi muy le ministre Dame Diop euh, biñ ko laajee ci li nga xamante ni mooy wàll wi lan la ñu xamal mooy que ni daal moom nee na ndaw ñi amuñu jafe-jafe pour amu xëy. yow déjà nga war a def ay jéego war a def yitte pour dox ci ndaw ñi utal leen xëy mais jéemuloo ko def xanaa ñu laaj la nga ni daal am xëy jafewul ngir ndaw ñi beneen bi sopp mooy ñi nga xamante ni ñoo ñu jiite bu ñu bëggee yu mel nii jeex nañu bàyyi kumba am ndey ak kumba amul ndey supposons li ñu bëgg wax mooy que ni tey da ngay nekk koo xamante ne nii ah comme man tey ma nekk sama koñ nekk fa ak ñoo xamante ni supposons dañuy joxe exemple ma nekk fa ak ñoo xamante ni tey parti au pouvoir la ñu bokk ñooñu di ma dimbali ba dugal ma ci ñoom bërëb yi ñu ne man ma dugg fa am si lu ma jàppandi. gis nga yu mel noonu su dee am nga koy def ci ki nga xamante ni tey euh, jàpp nga ni daf lay jàppale. nga koy dimbali mais ñeneen ñi nga di leen seetaan lu mel noonu nag mooy waral en général ñu ci bëree bëree bëri ci ndaw ñi ñuy wëy di jël yoon wu ni mel. pour xeexoon nag yoon boobu ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dogal ñu teg leen ci biir réew ci réew mi ñu jiite wàll wi surtout ki nga xamante ni moo yore wàllu xëyu ndaw ñi war na fexe ba mu bañ a xàjjale kenn ci ñi nga xamante ni euh, ci ci ci population bi maanaam nga bañ a wax ni diw. dafa ànd ak man wala diw àndut ak man yow bul ci ràññee lenn jàppal ni daal nit ki ànd na ak yow àndut ak yow jàppal ni borom bi fexe na daal def na ni daal yow yaa jiite ku jiite nag war a njaboot xam ni da ngay njaboot te ku njaboot nag ñi nga njaboot ñëpp war nga leen a war a mën a gérer. Euh, ñu joxe benn exemple xam nga dañu fi indi benn projet boo xamante ni dañ ko tuddee DER ñu ni dañuy financer ndaw ñi nga xamante ni ni dañu am ay projet mais lan moo ci am. ñu bëree bëree bëree bëri ci ñuy déposé ci DER bi bu fekkente ni yow amul kenn koo ci miin koo xamante ni wër na la ni bokk na ci APR wala ci nguur gi pour nga bénéficier wu ci DER woowu du yomb. kon li ñu bëgg a wax mooy que ni ñoom ñi nga xamante ni ni tey jigéen nañu waa APR ñooñu la ñuy ëpp lu ñuy dimbali di leen utalum xëy kon nag dina jaadu ci ñi ñu jiite comme ni ñu ko waxee sànq ñuy bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax a baax. beneen bis topp tamit mooy ñi nga xamante ne nii euh, ay waajur lañ nañuy fàttaliku ndax borom bi daf ñu ni euh, wala boog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu ni kullukum raain wa kullukum masulun an mu ni kenn ku nekk ci yéen sàmm na te ëllëg yowmal xiyaam borom bi dina ko laaj li ma la dénkoon naka nga ko sàmmee woon mu ni waajur wi sàmm na te ëllëg yowmal am borom bi dana ko laaj li ma la dénkoon naka nga ko sàmmee woon kon ki nga xamante ni way jur la ëllëg yow ma xëyaam borom bi dina ko laaj sa njaboot gi nga xamante ni moom laa la joxoon naka nga leen sàmmee woon waay waay soo melee ndax papay duudu xale bi nga xamante ni euh, fukki at ak ñeent la am waay jur bi jaarale ko ci géej gi naan dafa bëggoon mu dem football yi ba faf fa mu jaaree fa ñàkk ba xenam waay waay ndax soo melee ni kooku waajuram woowu su demoon ëllëg yamal xiyaam jàkkaarloog borom bi borom bi bu ko laajee ni ko njaboot gi ma la dénkoon naka nga leen doon sàmmee est-ce que di nga taxaw naan ko ah man de sama doom dama ko bëggoon pour mu tekki ci wàllum football ma jaarale ko ci géej gi mu jaaree fa ñàkk ba xenam ndax da ngay wax loolu mbokk yi kon nañuy delloo si suñuy xel nañuy xalaat surtout waajur yi am na ci ñoo xamante ni nii nag. am na ci ay waajur yoo xamante ni ci wàllu mbëkk mi dañ ciy am part de responsabilité di nga si gis koo xamante ni tey mënoon na taxawu doomam ba mu mucc supposons tey bu fekkente ni sa doom dafa la wan ni que ni lii laa bëgg mu wóor la ni li mu bëgg nii dara mënuloo wax wax wax wax ba génnee ko ci mais fexeel noo ko mën a dimbalee ci loolu waaye nag am na ci ñoo xamante ni duñ ko def. loolu waral nga jékki-jékki rek xëy doo gisati sa doom wala nga jékki-jékki rek dégg ñu ne la jaar na si yoon sàngam ba jéyee am si su boobaa jàppal ni yow itam da nga ciy am part de responsabilité kon waajur yi itam nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax beneen bi sopp tamit ci cause yi ba tey léeg-léeg nga gis ñoo xamante ni dañuy nekk ci seen biir kër nekk ak seen ay moroom nekk ak seen ay nawle ñu di leen wax yenn yeeg di leen def yenn yi ba faf loolu pousser leen ñu bëgg a jël yoon wi nga xamante ni nii di yoon bu baax kon buñ ko xoolee facteurs yi nekk na loo xamante ni lu bëree bëree bëri la waajur yi daañ ci am part de responsabilité ndaw ñi am ci part de responsabilité waaye itam nguur gi amee ci part de responsabilité gis nañu bu yàggul dara son excellence monsieur Macky sàll ba mu demee fi nga xamante ni mooy tugal naam lem fa wax wax nangu na ni sax moom ñoom am nañu ci part de responsabilité mais fi ñu koy xaaree mooy que ni bu dellu waatee ci réew yi ñoom ñu xool ñu fexe naka la ñuy def ba jiyee yu ni mel mën a jeex wala boog mu wàññiku bu baax a baax a baax a baax et pour loolu mën a am lenn rek moo ci mën a moo ci mën a am mooy que ni ki nga xamante ni mooy le ministre daam Diop moom mi nga xamante ni moom lañu dénk wàllu xëyu ndaw ñi mu changé doxalin mu soppi doxalin fexe ba itam lépp lu muy wax rek mu nekk wax joo xamante ni nii du du du du du sànq kenn waaye bu fekkente ne yow ñëw nga ñu dëkk la micro nga ni ah ndaw ñi jafe-jafe xëy amul Sénégal su boobaa da ngay wax wax boo xamante ni nii moom nit mënu ko dégg. beneen bi sopp tamit mooy yóbbante boo xamante ni dañ koy jox ndaw ñi ak ñi nga xamante ni dañu jël vision rek ni ñoom daañu dañu gis Barça wala Barsaq mooy que ni. nañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu fexe ba lépp loo xamante ne nii mën nañ ko def comme effort ñu jéem ko def te daal loolu ñu jëm ko jël tegeendi ko ci suuf donte ni nag nit la mu gis moom moo xam lu tax mu gis ko te en général ñi ñuy gis ñi ciy dem ñëpp dañ ciy dogu rek te dogu gañ ciy dogu ñoom dara mënul wax ba ñu dellu ci ginnaaw mais liñ leen ciy ñaan rek mooy euh, ñuy sóoraale bu baax a baax bañ a yàqamti tey bàyyi xel te incha allahu rabbi buur bi mën na euh, defar yépp mu mel ni nag eh, dañuy ñaan yàlla rek képp koo xamante ni nii ñàkk na ci bakkanam yàlla na ko buur bi subhanahu wa taala teeroo ak yërmande ñi nga xamante ni génn nañ si àdduna yépp yàlla na leen yàlla yërëm te xaare leen ci fi nga xamante ni mooy aljanay firdaws ñi nga xamante ni itam ñi ngi ko def ci seen xel ñu di leen ñaan rek ñu tegandi ko ci suuf eh, jéem a xool leneen wala jéem a ut beneen yoon ñu mbokk yi lii moo nekkoon jàngatu tey bi mu nekkoon euh, li nga xamante ni mooy émigration clandestine bi ñëw nañu ci li nga xamante ni moom mooy facteurs yi kon nag euh, nguur gi ñu di leen ñaan rek ñoom itam bu ñu bëggee yu ni mel wàññeeku ñu gestu bu baax a baax a baax ndaw ñi fexe ba yokk bërëbu liggéeyukaay yi mu mel ni tey li nga xamante ni ñoom Bougane Gueye Dany def nañ ko créer seen benn entreprise jël ci ay ndaw yu bëri nguur gi moo ko war a gën a mën a def gis nañu ab Ablaye Wade réussiroon na ko en 2000 bon je ne sais pas 2009 10 xamatuma ban année mais mais Ablaye Wade mus na ko def ba mu indee gouvernement bi surtout ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci réewu kaw yi xam nañu li may wax bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci régions yi di bay ñooñu li may wax xam nañ si dara ndax léeg-léeg nañu gis Euh, benn bés rek euh, surtout ñi nga xamante ne ñooy ñooy xëy ci ci tool yi wadd daana def daana maître Abdoulaye Wade daana def ay jamono léeg-léeg rek mu dajale ndaw ñëpp daal di ni daal képp koo xamante ni mën nga jëmbatum garab nga ñëw di nga ci gis ñoo xamante ni tey euh, daanañu ci dem di ci gañe bu baax a baax a baax et que yu mel noonu suñ ko doolee rek su ko defee xëy yi mën na gën a am doole beneen bis topp tamit mooy ñu fexe ba li nga xamante ni mooy formation professionnelle bi ñu gën ko dooleel waaye nag ñu bañ a yem ci dooleel ko dong gunge ndaw ñi tey ki nga dooleel jox ko ay moyens mu def formation ba noppi pare amul dara mu toog di xoole ñooy ñi nga xamante ni ñooy dem di di di di di jëri ci géej gi te yaakaar naa même y a des étudiants yoo xamante ni jotoon nañ ci ñàkk seen baxen mu mel ni yu mel noonu tamit daf koy daf koy faral di waral kon ñuy ñaan rek suñu nguur gi ñuy bañ di xàmmee ki ànd ak yow ak ki àndut ak yow maanaam boo waxee ndimbal rek. fexeel ba utal ñëpp ñu am ci loo xamante ni ci lañuy jàpp kon DER bi comme ñoom niñ ko annoncé nañu ko gën a gën a gën a yaatal euh, laataa may tëj fi may mujjee mooy que ni tey jii nii tey ci tey ci tey suñu waxoon ni ci tele bi ni diw dafa amee problème mu nàngam nañ ko dimbali balaa 24 heures même su dee un milliard gars yi dinañu génne un milliard teg ko ci taabal bi. et pourquoi pas ñooñu noonu ku ci nekk koñ ba nga dëkk am na ay ndaw ñoo fa nekkal mënoo leen a dimbali utal leen xëy utal leen ci lu ñu jàpp waaye mukk doo leen ko def lan ngeen di def mooy que ni daal balaa a mën a joxe dëgg il faut que ñu dëkk leen caméra yi il faut que ñu wane leen ci rajo bi ngeen mën a joxe. mel ni kon ñooñu li nga xamante ni dañ koy def bu ñu ko doon yamale d'abord ci seen koñ yi xool ñi leen jige ñu di leen jàppale jiyee yu ni mel mën na wàññeeku mbokk yi delloo si leen xel yi. xool leen ki nga xamante ni moo féetee ci côté Amérique la nekk si je me ki nga xamante ni mooy jël xaalis bi di ko sànni ci suuf kooku bu dee jullit la bu dee sénégalais la nekkub jullit ndaw ñi nga xamante ni nii ñu ngi fii am na ci ñoo xamante ni mënoon na leen a dimbali am na ay mbokkam yoo xamante ni am na ñu ñu xam ñu leen jige ñu yeyoo ndimbal waaye nañu dimbali ñooñu mais surtout tamit li ma wax sànq mooy que ni tey ki nga xamante ni saa bu ñu waxee ni que ni dañuy def ndimbal rek. ñoom da xaaruñu lu dul ñu woote ko ci tele bi ñu soog a dimbali nit ñi mais ñooñu tey gis nañu euh, ci jamonoy Covid bi bi ñu waxee ni que ni dañu soxla benn somme léegi léeg nga gis nit woote ni may naa un milliard mais kooku nañu xool un milliard boobu mu joxe su ci dajale woon ay ndaw lu tollook euh, ñenn ci ay ndaw rek ma joxe exemple mu jël ñaar fukki ndaw rek ni leen kenn ku ci nekk jox naa la nàngam pour nga def liggéey sàngam. ma joxe ci benn exemple fii à Kër Massar am na ci benn góor gu tudd Abdourahmane Fadi Diallo gis naa ko moom muy def lu ni mel ndax am na ay ndaw ñu bëri créer na boulangerie jox leen ni leen nekk leen ci di liggéey gis nga comme kooku na mu def bu ko ñëpp defoon dinañu gis ni que ni euh, ndaw ñi su boobaa dinañu am si lu ñu jàpp te buñ ko amee rek yu ni mel dina mën a wàññeeku bu baax a baax waaye yow bu fekkee ne ne xaaroo lu dul télé yi wax nañ ni nañu joxe nangam nga ñëw joxe ko daal di ni nag euh, di ci xaar nit ñi ni diw moo joxe nangam ah te borom bi wax nañu ni ki nga xamante ni da ngaa joxe ngir ngistal borom bi bu lay fayit ngistal googu nga ciy am mais ki nga xamante ni da nga def fii sabilillah su boobaa nag jàppal ni ëllëg yomal am borom bi dina la dina la dina la xettali bu baax a baax a baax mais bu dee nag da nga ko def ngir puukare jàppal ni puukare googu nga ciy am mbokk yi kon lii mooy jàngat bi leen doon indil tey di leen jox dig daje. beneen yoon ci seen émi euh, ci seen chaîne info 15 point com euh, di leen wax tamit ba tey ni leen ni incha allahu rabbi daañu ànd jamono jii di ñëw ci kanam dinañu ànd ak ki nga xamante ni mooy euh, Amar Niang ñu gën a waxtaan ci li nga xamante ni mooy émigration clandestine bi ñi di leen jox dig daje beneen semaine ak beneen jàngat ci seen chaîne info 15 point com.